Sédhiou day taw Sédhiou euh, mbay mi dox doo war na fa mun a dox mais kon lan moo mën a tax loolu nga xam ne ne ñu ngi ko tuddee les secteurs primaires surtout di mbay mi napp géeg yooyu mënuñu ko doole su boobaa moom mooy doon la locomotive buy tirer ces ces ces terroirs là vers mhm. donc loolu moo koy indi mais bu fekkee dañoo bëgg a jàpp rek ne fiscalité nañu état bi di dundee pour ne wéy loolu mooy doxal réew mi croissance six pour cent teg ko ci yooyu mais du ñu dem fenn et que ndóol mi encore une fois. a yokk surtout ak moom mooy. tout naa nekk si da nga te question bi sa. Euh, rapidement Siri très euh, voilà mi ngi noonu xam naa ne prochaine fois loolu dana ci wax euh, El Hadj Ahmed Aïdara le grand maire l'éminent ñu ngi lay la dalal ni agence nationale de la statistique ak démographie ci la bokk waa wala xam nga li mu def benn mooy décrédibiliser benn entité bu bokk ci état ku def liggéey ba pare yow nga wax ko ko li nga wax amul mais ANS ANSD mais fa la DG wu port ne woon agence nationale la wala agence privée la wala internationale bu fi nekk la comme ñoom Oxfam wala ay ONG la loolu moo jar laaj question bu njëkk bi loolu la ñu war ba pare Ibrahima agence bi agence nationale la wala ay ONG internationale yi la wala euh, euh, euh, agence privée la loolu moo jar mais yow lii démembrement wu état boo xam ne dafa wax joxe ay chiffres yow ministre économie plan coopération nga génn démentir ko ne ko loolu amul foofu am na kon problème. dama ci yow. waaw te mu bokk ci yow à quel chiffre se fier alors loolu moom moo war a njëkk a laaj deuxième bi mooy ay chiffres. nañ ñu dimbali ak chiffre Birahim le le le xoolal xoolal gis nga le taux de croissance bi ñuy wax di tiitaroo naan Macky yóbbu na ko léegi à sept wala à huit euh, te objectif am taux de croissance à deux chiffres dix onze douze quatorze na yegg vingt mais bu feeñulee ci poosu Mademba Ndiaye wala Sanjiri wala Fatou Gueye wala feeñ ca saa ndey nday bee mu yóbbu ca marché ba mais loolu euh, taux de croissance à deux chiffres te répercuté wul fii ban sens la am fii nii ci biir poos bi ak lu ñuy lekk gobar jaaseng fi am ba tey ñoo xam ne bu ñu toggee añ euh, euh, tibb ca reer ndóol mais ndóol gi kan moo ko mën a bas. encore dina parce que fi mu nekk ni lépp la ñu yokk te sànq rek ñu ngi wax si journal bi. lu ñu wax ñu taafantaloo Covid lu ñu wax ñu taafantaloo bëri ko pétrole. te bëri ko pétrole bi bu yeggee soixante bu yeggee cent cinquante dollars. ñu ne dafa seer mu wàccaat ba soixante dix ba trente dollars te yow du tax nga wàccee njëg yi bu laalee cent dollars nga ah. un ah. mais les gens dañoo am kenn koo xam ne dañ ko mel ni ku blanco. banque mondiale ak ANSD ñoo def rapport bi. Mhm. donc mënoo ñëw démentir banque mondiale démentir ANSD en même temps institution eh, eh, yi yàgg nañoo wax dara état wu Sénégal di leen démentir. Mhm. di leen démentir ak ay CEDEAO ak yooyu. mais loo xam ni yow ci yow la. agence nationale la. nga nekk patron teg di ko sant liggéey mu def ko ba pare yow nga génn weddi xot liggéeyoo. terminé yéen a kaay ñëw ak ay nuyoo naa. nuyoo limina le grand professeur. sama yaram a tàng ndax wàllum gi Siré. Siré maa ngi lay siyaar. yaas na tey moom. mais loolu nekkatul info quoi. waaw biti la fanaan. biti la fanaan yaas na nga sañse. matinal gi rek matinal gi rek. ci seen barke rek. Eh, ci seen barke waaw euh, Sen TV Facebook l'officiel des médias l'officiel sur YouTube wala des médias euh, sur Play Store App Store. <laughs> waaw doo yeggali. waaw maa yaastoo. la grand-mère. <laughs> yaastoo ci la wane. sant yàlla rek. mais yow c'est ouest. ouest. ma ne loo mën a jël fii parce que yow maire par force ngay ne et pas forcé. comme le dit Biraye. kon par la. par force la. maay maire ah grand journaliste Biraye. maa ngi sama rakk jaa ngi siyaar bu baax. le médiateur de la république. léegi <laughs> waaye amul woon wuti la problème yéen a ngi ko war a ñëw saafara. ci ci ci franchement si euh, point bi nga xamante ni soulené nañ ko après il faut mu wax ci après des finances ah. nekk nekk chargé communication ah. DPE ah, ak DGPE réforme bi xam ci lu bëri mais malheureusement on est pris par le retard non non non mun sóor a ngi ñëw te di ngeen ko def débat waaw ça ça mérite un débat ça ça mérite un débat dégg te li ngeen xam nga gars yi dañ ne woon ñaari député ñu ne waat y a un troisième le Sissoko la waaye gars yi ñi ñuy topp fi mu nekk nii mat na ci juróom-benni député li Fabrice naan ndekete yoo ndekete yoo mat nañu juróom-benni député te ah oui mais gis ngeen néeg bi nga xam ne foofu la ñoom xalifa nekkoon ak Karim ba ci Seyna Fall Bougazelli mais néeg yi gars yi ñu ngi leen di aménagé waat di leen defaraat. non mais punkali mais dañoo war a daanu ku am ndey ku amul ndey waru fee am ñoo ngi nii langal ko booy rappeurs yi ana député yi dégg moo tax Mamadou Lamine Diallo mu ne xam nga saafara wu Macky la ñuy xaar ci dundu gu seer gi c'est solution Macky moom moo ne opposition bi ay nilaar rek ñoom ñoo ci ne waa léegi moom mi man waa léegi na indi saafara xam nga nilaar nilaar dégg Walfadjri ñëw ak ngi ci ay menaces ngi nii balaa nga naan naam ne fa ay leader yu bëree bëri boo gisee du ñuy nangoo nekk nag ay candidat fa ñu dëkk ay risque nga ca non mais boo perte yow sa commune wala sa département nan ngay laajee Sénégal mm-hmm. journal bi ne moo tax euh, euh, euh, Abdoul Mbaye candidat wóorul de mm-hmm. kan Ousmane Sonko ca Ziguinchor ñëpp xam nañ ne mooy borom Ziguinchor mm-hmm. Ziguinchor moom sonkoo ko moom waaye boo gisee Barthélemy Dias di ko do déconseillé naan ko bul nekk candidat risque booboo ci am. ñaara ko fi réussir. Mm. Idrissa ak Macky Sall nekk candidat seen koñ gagné dem élection présidentielle moo tax Ndakaaru Ndiaye jël Diop gii bu Barthélemy Dias nekkee tête de liste bu mu kenn boog suba bi li ñëw ak ñun ci màggal gaa ngi 5778 personnels de santé ñooy dem au front ci màggal gi dégg nga ministre économie nag dégg ngeen li mu wax. nee na ndóol gi diggante 2011 ba 2018 wàññeeku la def ci mim réew. Mm. yokkul de ndakaaru njaay mi jëloon te dellu na ginnaaw yemu ca parce que nee na ci Sud Quotidien la boobu maa ngi ñëw jarul yàkkamti waaw ah, kay mi ngi nii kaay fii mi foofu. ay chiffres la joxe espace UEMOA gii nee na ñoo jël pay ay Burkina kii ay Mali ki Niger ñii ngeen gis nii yëpp. en matière de ndóol jéego yi Sénégal def Ibrahima Mendy bokk ci directeur am yi. Mm. nee na mais grâce au PSE plan Sénégal. émergent. faut parler Forias. Ah, plan Sénégal émergent. voilà. Mm. on dirait que vous dormez là. bu classe bi jaxule damay génn cour bi wala wala ma toog de. professeur yi itam ñu ne nii ci kaw taabal yi xoolal ñu def ñu fa naan fekk dañoo sonn. dañoo sonn sur ça ñëw ci. voilà. ma am ndey ak kumba amul ndey bañ doon wax ak nii nag gis nga li ñu doon wax léegi nii hmm. ña ngay manœuvrer éli ñu ngi wootante seen biir pour bu gaa yi wote laa li malaanu kiiraangewu seen député di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye gaa yi fi mu ne nii ñu ngi commencé a laal li seen malaanu kiiraange hmm. lii ci Macky rek la dépendre. ah non mais mais mais dama ne. Bougazelli démissionné wul. bindul benn leetar dañ koo bindal leetar indi ko ne ko punkal mi nee na nga delloo ko yëfam Macky lu muy xaar ci ñii flagrant délit la bu ñu sukkandikoo ci waaye moom sëñ bi nga xam ne moom lañ ci jàpp sëñ bi Condé dem leen wuy ji Ahmed bu ñu fàttee mukk ni Bougazelli ñañ ko jàppandowoon ba tey ñu ngi sous mandat de dépôt su ma juumulee nga ñeme ko wax merci Yass pour les précisions vous avez trois points de plus d'accord Baïl Omar Eh. Omar. le soleil yéen kaay inondation plan Orsec audit du plan décennal. Omar xaritu yaas ñëw na ak ñun projet deux nga xam ne bi ñu ko évaluer Omar nee na cent Omar nee na ak une phase de quinze ah, boobu mooy Omar <laughs> yemu ca nee na un plan d'assainissement de vingt projet bi ma foog ne ne 88 milliards nañ leen jox. Omar la. moom moo ko wax. jëlal yaas yow ma si. 88 dama ne Omar nee na 20 yi c'est pour Touba Omar. nee na projet 2 bi bi ñu ko évalué à plus de 172 milliards ça Omar man lan laa ci mën. mais leneen banque mondiale oh, foofa na nag da dëgër bopp. Omaro Omaro moo ne 15 génne plan d'urgence waaw léegi bu dee Omar li mu wax yow daf laa doyul foofu nga jéem a Omar <laughs> Omar réew mi quotidien nañu Omar waaye yaas li muy rey il faut mu dégg non non que gëw ku ko wayoon de Omar Omar eh, lan la eh. différence dàq ak dàq dàq ñu dàq ah. ci wolof buñ la dàqee hmm. mooy dañ lay dàq rek nga dem hmm. Hmm. mais euh, ñu dàq la tegal la ci ay ay dóor <laughs> ko bàyyi Omar Omar xaritu Yacine la waaye bàyyi bàyyi ngeen di sa micro baax na sa micro baax na voilà li moo tax sànq commentaire kenn dégg ko woon sinon mi ngi doon commenté voilà Yacine tëj sa micro de parce que ko tuddee ñëwal fii ngeen fii ngeen xulli nii jàpp Omar Omar ba invité ko fi seen soo ñëwul mu leen di délégué ay nit bàyyi leen Omar ah ah Omar Omar xaritu matinal bi la. yaas yaas ko. non bàyyi leen jàmbur waay yéen tamit. yaas woo ko non non non fii Omar xanaa bu dee Omar. Omar Gueye moom d'accord nañ ñu invité ko mu ñëw taxaw. Hmm. ndax yow xamoo wax ju ñaaw defoo ko waxoo ko ndox mi rek a sonal. yow Omar dégg réew mi quotidien ñëw ak ci. passeport diplomatique bi niñ ko def comme gerte caaf banaliser ko parti démocratique sénégalais nag lañ ci jàmbaaraamu tuuma la quotidien yéene kaay ñëw ngeen ak l' expression honorable député a Sarr la haute lecture du ministre moom sëñ bi haute réponse sod merci beaucoup foofu y a deux points de plus merci Benno Bokk Yaakaar investir Seydou Gueye Cheikh Ba di xaar moo tax Medina moom Benno Bokk Yaakaar a ngi fay tas l'observateur ñëw ak ñun ci tey la tey ah non non li nga xam ne moom lañ nar a toppee les rappeurs faux ci document administratif mu ngi nii trafiquant déggoo ma de de migrant gis nga ko nii moom daal boo bëggee dégg dëgg daal association de malfaiteurs lii leen gars yi toppee coalition PDS bi nag temps yëngu na sournal bi ne ah xaar leen sax ñeneen daal dafay jóge libération yéen kaay ne waaw kay ñu ngi nii lu tolloo fukk ci ay infraction hmm. yoo xam ne dañ leen koy toppee xam nga procureur lan la wax hmm. ñetti mandat de dépôt ñoom ñetti ñoom nañ leen dugal ci biir kaso hmm. waaw tey la juge bi di wax ñu ngi nii ñu ngi nii dégg le témoin yéen kaay ñëw ak ci Amadou Hott borom yëmbal a ngi